l'actualité gay en continu continue va seeni waxtaanee li nga xamné nak nag moo jëm ci ki di donc euh, Ismaël euh, plutôt Pape Matar Sar hein, la ñuy waxtaanee wax également ci xam donc Boulaye Boulaye et aussi Kalidou Rock Koulibaly yi nga xamné ñom dañ doon jouer euh, tay nek aussi benen week-end parce que dem week-end de fële pour gaynde aujourd'hui également dinañ ci waxtaan mais la tabou gay walum NBA Jamaron donc bi mu def gars taxna ba ki nga xam moy la légende ah di LeBron James dadi bind oh my god donc oh mon dieu par rapport nga xam nag moy li di donc bi nga xam dënk bu exceptionnel dënk venu d'ailleurs le bo xam ne moko daldi def mais gars insolite mooy lan insolite bi gars dem leen déglu son wu Shakira bi ah Shakira bi dafa ne également ki di euh, Piqué daf ko bayyi ah daf ko bàyyi mu nek marque auto bu rafet bu bax mu dem jëndee ko Wingo daf ko wax rek lendemain bi euh, ki di Piqué dem jël Wingo. <laughs> diko diko dawal quoi Piqué mom mom day Piqué ay pic rek ki nga xam ne donc Shakira ki nga également mooy Alexandre Seferin moom wax na ci super league bi nga xam ne waa Real Madrid bëgg nañ ko créer ak ñii xam donc mooy Fiorentino Perez nee na Fiorentino Perez moom dafa yaakaar ne moom moom football bi quoi parce que Real jël nañ trophée ngeen ko mu dóor benn youtubeur algérien mais finalement kii di ambassadeur Algérie bi nekk euh, donc Cameroun daf ko waxtaan moom nag nee du trahir Algérie parce que Algérie ba Cameroun bëggee organiser coupe du Afrique bi gars yu CAN 2025 CAN 2025 boo xam ne ñu ngi waroon defee bi ca Rabat finalement nag ca Caire lañ koy mujjee defee ndox gas nga gars Algérie ak Maroc ñoom gis nga seen rataxul ni mo war a ki xam Mohamed Bayo Mohamed Bayo nga xam ne nag ah, donc attaquant guinéen bi quatre derniers matchs donc il a marqué quatre buts avec Lille tay doublé la def ah, donc Mohamed Bayo bi nga xam ne gars yi dafa mënoon trophée gis ngeen ko bam démé boîte de nuit et tout bañ ajoon ko légui dellu sina il est au top de sa forme ki nak également di Marco Verratti Marco Verratti gaay néna mom actuellement dafa bëgg am nationalité française hein bokkul ak dara ak football France hein nationalité française parce que mom France la le la parce que ba mu nekkee xale jeune la fa ñëw bo légui fa la amé soxna fa la défé léppam donc Sonko normalement, on mu daal am attachement ak ki mi France gars yi nag derbi tey final bi super coupe d'Espagne ñëpp di diggante Barça ak Real Madrid la n'ak nag ñoom ñaar seen diggante gay c'est 250 matchs ah ñii di wa Real am 101 une victoire ñi di Barça am 97 victoire tey nak kan moy gagné Barça mi nga xam ne na obligatoirement dañu wara a gagné trophée bi Ki nak di Modric dem na officiellement fa nga xam moy donc ci Chelsea présenté nañ ko tay sax seen match bi donc numéro 15 lay daal sol la pépite ukrainienne Modric gis ngeen ko Modric donc euh, mom dal Arsenal lañ boko bëggoon mais finalement ci di Chelsea moo teg xaalis bu gëna bëri pendant ce temps également Arsenal ñom pour daal koy remplacer ki seen gëd ñu ko qui Rafinha Rafinha boo xam ne nag euh, donc euh, aujourd'hui Juan Laporta 100 millions nee na la millions lay pour daal di l'attaquant brésilien mu daal di du côté de euh, d'Arsenal donc Chelsea également tey gars yi bi nga ay défaite la enchaîné woon match nul Chelsea tey noué na victoire et gagné donc au niveau de leur stade lañ gagné tey ki nga xam ne du Kai Havertz moo di ñoo Crystal Palace Crystal Palace hein, donc l'équipe de Wilfried Zaha ancien club de Cheikhou ñom ñoo leen daal di dóor mais aussi ki nga xam ne mooy Benoît Badiachil tay il était donc titulaire mu nekkoon première titularisation bu Benoît Badiachil moom ak ki nga xam ne nag mooy donc Thiago Silva la ñu tegoon au niveau de la défense et donc ñu am donc victoire mais amuñu victoire ñu am également li nga xam ne mooy donc clean sheet mais aussi Hakim Ziyech mi nga xam ne gars yi tey ah donc aujourd'hui également auteur d'une passe très importante pour cette équipe euh, donc de Chelsea Hakim Ziyech mi nga xam ne aussi moom mi ngi commencé ah depuis coupe du monde bi ñu ngi koy gën a jox taxawal jox temps de jeu donc tey aussi il a fait un match énorme et Khalidou Koulibaly donc Bonya Badiachil Dafa donc titulaire Khalidou Koulibaly était sur le banc il n'a pas joué donc le capitaine de la euh, défense sénégalaise donc mon départ match bien hein. donc il était donc remplaçant ci jongante bu nu mel donc actuellement donc concurrence bi lancé nañ ko et que Badiachile bi buñ ko ñëwé c'est parce que pour mu jël place su Koulibaly la mais aujourd'hui également donc di Fatene fàttali ne démb di donc Nampalys mendi il a joué son premier match avec Leicester mais nak Nottingham Forest mo leen dari di mais ki di Nampalys mendi il était titulaire donc pour la première fois aussi ci ñaareelu patch euh, li nga xam donc championnat bi ki di donc Pape Matar sar Ndiaye Boy comme j'aime mal l'appeler Pape Matar sar tay titulaire avec ñi nga xam donc moy wa Tottenham sen jongante ak ñi nga xam donc Arsenal première titularisation donc de Pape Matar Sarr malheureusement malheureusement premier parti bi demeewul ni mu waron, waroon premier mi-temps bi donc premier mi-temps bi dañu leen 2 buts à 0 mais pas Matar Sarr da doon hésiter parce que mooy lan il était toujours très neutre pour man dafa neutre quoi jëlu ay initiative comme nous mu waroon def laaj bi et tout et tout donc pour man premier li mu waroon match boo xam dafa waroon déclencher Grande am chance am prouver def match exceptionnel pour ñu mën ko gën jox chance mais aujourd'hui premier mi-temps bi d'Al. en tout cas il est passé à côté Hugo Lloris également Momo Dougal contre son camp ci biir bi nga xamné nak Arsenal bi donc Hugo Lloris bi nga xam tay def na erreur deuxième bi aussi hein gis ngeen ni mu démé Martin Odegaard également a profité ci errement défensive yu nga xam mo Chelsea plutôt euh, Tottenham pour aller Dougal mais Boulaye Bouledia encore buteur Boulaye Bouledia gay dougalat na tay jini hein. Dia avec Saler nga xam l'attaquant sénégalais donc de l'Italie le Nitana bi nga xamné Momo également Pape Matar Sarr donc tay Boulaye Boulaye waré na bopam il enchaîne encore avec un autre but actuellement c'est 8 buts donc par rapport à nga euh, championnat et tout donc au Boulaye tay il a encore été auteur d'un match exceptionnel contre Atalanta gay donc c'était les informations que je voulais vous donner hein. toujours un plaisir guys, chaque fois de vous servir woy de like et surtout woy on avance ensemble guys, dans la magie de eSport TV bon euh, week-end parce que tay lay bon fin de week-end